bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ma sante yàlla sant sama ñaari waajur maa ngi présenté wu fii groupe Mame bu Bousso ñun de liggéey rek la ñu fonk lu ne ñu ci jàpp boo dëgër bëgg rek avancement jàppale suñuy borom kër jàppale suñuy doom léegi ñoo ngi ñaan ku ñu mën a jàppale mu jàppale ñu parce que fu mu nekk ni ku ñu jàppale rek lañu bëgg liggéey rek lañu bëgg nag ñiy def jardin ñiy dem uti jën ñiy jënd yu sew di jaay fajar la ñuy xëy ay jigéen lañu bëgg daan suñu doole bu ñu amee ku ñu jàppale ñu dem. maa ngi nuyoo di nuyu sama mbokk yi fi toog nii yëpp leen nuyu di leen sargal waa si bésu mars bi moo ñu tax toog fii. groupe bi nag ñu ngi fi Lindiane Lindiane la groupe bi nekk ko groupe waa groupe euh, Maam Jaara Bousso waa ñu ngi fi Lindiane Koboda waaw maa ngi tudd nag euh, Mami waaw groupe bi nag bu ñu sañoon ñu am ku ñuy dimbale daal jàppale ñu parce que man mii di wax ak yéen fajar laay jóg bàyyi sama kër waaw dem nag di wuti ji lu may am bu ma sañoon nag ñu amoon ku nga xam ne ne ñu mën a jàppale daal ñu mën a gën a avancé daal ci nu ñu nekkee nii waaw loolu lañu bëgg bu dee dinañ ko mën a am daal. asalaamaaleykum maa ngi nuyu bépp jigéen bi ci teew maa ngi nuyu waa mbootaay bi man la Néné Seydi lañ may woowee di madame maa ngi nuyu groupe mbootaayu Mam Diarra maa ngi nuyu bépp soxna yi fi nekk. si 8 mars bi ñuy ñaan nag ñu fekkee 8 mars yu bëree bëri waaw ah, mën nañ lu bare mën nañ lu bëri wax dëgg yàlla bu dee ne am nañ ci fu nga xam ne ne dinañu jàppale waaw mën nañ lu bëri même objet javel bii ñuy wax ni mën nañ ko defaral suñu bopp bu dee am nañ fu ñuy financé ci waaw sos mbootaay bi ba léegi léegi am na ak nek ñi di fi jaar yëpp jàll ni kenn dañuy dig rek mais duñu def lu ñuy dig suñu moyenu bopp la ñun ñooy defal suñu bopp di yi wax rek mooy seen mbir dañuy ñëw ba ñu bu ñu demee ba ñu am li ñu bëgg duñ leen gisati amuñu ku ñuy financé bu ñu amoon ku ñuy jàppale ñu jaay dañuy jaay ku nekk nga dajale fii ba dimanche am sa cent nga ñëw natt. waaw waaw mooy gouvernement bi daal toujours loolu laay wax ñu jàppale ñu parce que ñun tamit bëgg nañ liggéey. waaw ñu mën ñoo jàppale daal mooy sama kàddu xanaa di ko rafetlu rek di sant yàlla yu bëri di ci ñaan tamit ñu dimbale ñu si parce que bis bii lañ am ñun waaw bu mars pour jigéen ñëpp la di si ñaan tamit ku ñu si mën a dimbale rek ñu mun see taxaw bu baax liggéey si mën si ñax jëriñu daal ak jàppale suñu njaboot ak suñu borom kër message bu may lancé mooy maanaam ñu jàppale ñu ñu jàppale ñu te xam ni ñun Casamance fii liggéey rek moo ñu tax a jóg doomu Casamance foo ko fekk liggéey rek moo koy tax a jóg fajar la ñuy xëy tefes yi boo demee fekk fa ay jigéen marché ba wax nopp fu ne jigéen yi ñu ngi fa di ut lu ñuy lu ñuy dundale seen jaboot yi taxaw seen jëkkër yi. leen wax bi amul benn njëriñ parce que léegi borom kër yi mun naa ne defatuñu defalatuñu kenn dara bépp jigéen da nga war a jóg nga daan sa daan sa doole defal sa bopp defal sa njaboot. te léegi kenn defaratul kenn dara ñu ngi ñaan rek pour ku ñu mën a jàppale finance ñu ñu liggéey parce que fii ay liggéeykat rek ñoo fi nekk fii jigéen liñ ñaan liggéeykat rek ñoo fi nekk képp koo fi gis rek ku ci nekk am nga looy ci looy ci looy dox ñëpp ñëpp am ci lu ñuy jàpp bu ñu amee ku ñu jàppale daal muy mu dimbale ñu mu finance ñu mu liggéey waaw ñeent fukki nit ak lu ci tegu chaque dimanche la ñuy daje fii su ñu mënee ñëw chaque dimanche ñu ñëw xool jotaay bi ak mbootaay bi ñu jàppale ñu. comme kàddu bu mujj mooy ba tey rek di si delluwaat rek pour ñu jàppale jigéen ñi pour ñu liggéey. jigéen ñi daal lu ñu mën a jàppale rek ñu jàppale ñu ko ñu liggéey parce que ku fi nekk yaa ngi am ci looy ci looy dox lépp looy dox nekk boo amee ku la jàppale rek dangay day dem dangay dem.